gouverneur ñu ngi lay nuyu ci kàddu sëriñ Abdoul Fattah mi nga xam ne moo yore baatu Serigne Abou Baraka ñuy xalifa Alaaji lu Mbakke moom laa fi teewal mu fab Serigne Mourtada mii daf ko muy kilifa ak yoon wi mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaan nga jot jotal ko ay nuyoom ak ziyaaraam ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo séq liggéey bi di la feddlil ak jaxasoom ci kóllëre ak bokk bu ngeen bokk li ngeen bokk di ko seereel mbooloo mi yépp eh, li ko tere teew tey nag ci jëmmam donte fu mu war a nekk bu fa suñu Murtada nekkee mook moom ñoo fa bokk nekk ci yittee sëriñ bi rek la ak nit ñi ñu ngi koy jégalu bu baax ni ko sëriñ Ahmadul Badawi nag waxe wala Ahmad Badawi sëriñ Ahmad Badawi bis bi ñuy séentu ba waral ndaje mi yaar la yum àndal te mënuñoo tàggoo bi ci jëkk junj na ko muy wàllug diine gum laalanteel lu baree bari bu fekkee sëñ Fallu daa gën a àdduna ci bis bi ñuy joxe julli jullit yi bu sëñ Fallu tabaxee jumaa du doon kéemaan ndax moom day mel ne du ma ne moog julli waaye julli moom lañ yónnee ci yónnee ci moom mel na ni def na ca lu bare bare bare ba tabax ba tabax jumaa ju jutal na jéemu tabax mm-hmm. wàllu diine gi nag sëñ bi wax na ci du ci dellu si waaye dafa amit wàllu social wàllu social gi nag mooy sababus ndaje mi yi nga xam ne ñiy ñëw dañu ko fay yittewoo te mën na mënuluñ ko seen bopp te mënuñu koo ñàkk mu diisoo ci ak ñi nga xam ne lu ca bari mën na sotte ci seeni yoxo kon li ñu fi jot a dégg lenn li mën naa am ñi am nañu junj ne sotti na ba noppi ndax ma nga ñu denc ñenn ñi it digge nañ ñi digge nag lañuy ñaax tuuti ñaax nag boo ko déggee mooy soññi soññi mooy di doxal daamar euh, dóor ko ak xiir walla caw ko xiir muy bi muy bi bi buy déqi li muy déqee cawaat ko geneen xiir cawaat ko geneen xiir muy yent mu xeeb la muy daw mu cawaat ko juróomeelu xiir mm-hmm. ñu leen ci soññi bu baax a baax doonte cawante ay xiir moom xewut ci réew mi sax waaye ñu xam ne as gor moom moom boppam li féeg ñëwul danaa def wala danaa bàyyi bu xasee ba ne danaa def moom nit ñee koy àtte ak jëfam ak wax jam waxoon su ne danaa bàyyi noona yàlla na leen ci yàlla defal ndam nag ba ni ñu ko séentoo lépp suñu borom dogale ko noona jaam nag mën naa bëgg waaye yàlla mooy sottal yàlla na yàlla sottal eh, kàddu yi rek lañu amoon ci luñ ciy wax di ñaan suñu borom ci kàttanam mbooleem ñi nga xam ne seen loxo da ciy dugg ci ay chef de service ak service yoo xam ne ay nit a moomal seen bopp ñëpp suñu borom jàppale leen ba ñu mën a àggale seeni yéene ndax lépp njariñu nit ñi rek la ndax junjoon nañ ko fi daaw sëriñ Fallu du yëfi nit ñi kese kese du yëfi jullit yi kese kese du yëfi murid yi kese kese waaye nit rek la fi nekkaloon ak mbindee fi suñu borom yi koo xam ne demoon na ba ci biir këram amoon na fu ñu fa tabaxoon lu mel ne euh, melokaanu ndaalu gàtt di ca def ndox saa su nekk picc yi nga xam ne dañuy jóge ci àll bi yaakaar yaakaaruñ ko dul yàlla te mënuñoo root mënuñoo ubbi robinet ñoom la ko fa defaloon boole ko di fa wis aspect soo xam ne picc yi ca sant ndaw ña ko ca tàmmoon moom kenn dutu bàyyi foofu fu jóge ñëw te da koy wax ay moroomam ñu àndandoo dikk kon moom nit ñëpp la fi nekkaloon moo tax bu ñuy waajal bisam sëriñ Abdul Fattah nee na euh, kenn ku nekk bu jotee moroomam rek na ko xamal ne màggalu Kazu Rajab ren ñu ngi ko jàpp talaata ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru ndeyukoor mooy ba rajab dëppook ñaari fan ci weeru avril euh, yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm suñu mbokkum séeréer moom doon wax léegi nag na xelam dal mook ñi sant sant yooyu sant seenum xel dal dal ndax incha allah yii may bëgg a wax lu ci nekk fas nañ yéene mën a fa gàññ euh, defal leen ko mu raxasu xo euh, xellil leen ko ak xollil leen ko na xelam dal kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla ñu ko fekkee ay ati at tey santaat yàlla ci fekk gi ñu ko fekkee woon daaw te ñaanal ko fekke ko ren asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu